ku ne yaa ma fa yóbbu laa sëriñ yow fii naan da ngay sensé sëriñ ak yooyu yëpp xam maa la wax nga naan ay sëriñ la man ala gars man ci ci sa guma moom moom daal nii la salaamaaleykum salaamaaleykum xam nuyoo salaamaaleykum yow mi ngi moom xanaa daal liw Thank you. xëy yow Samba Samba bàyyi ma waay. sëñ mu sëñ sëñ. kii sëñ bi nga bàyyi sëñ Cheikh Samba Ba borom maa ngi doon ci góos kii mi nga bàyyi ndax ñëw ci sëñ bi naan ma sëñ moom la. dafa xamul rek dafa xamul rek dafa xamul rek waaw jégal ko rek jégal ko rek. nee na bëgg coono yi bàyyi yaram bi jàmm alhamdulilah. mais ana Aba yow mbokk mbokk yow ana Aba. نويتما يجدد وإني أحمد سن بامبا وينا يونين بابا دم ماما دو وينا يونين با دم سن بو وينا يونين با دم يونين alhamdulilah gone kii moom gone kii may ma may ma ma wax la gone kii dama ko bëgg Ababacar ak mi xam ni moom dama ko bëgg man YouTube bi bu ma ca duggee say say say say say Instagram laay gis. <laughs> jàmbaar la. Mm-hmm. waaw da ngaa yëngal sëñ bi yëngal sama xol li nga wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla la yàlla defal jàmm. yaa Rasulullah. يا رسول الله يا حبيب الله Ramadan Mubarak weer wi weer nga ne